maam. say baay say baay. yu jëlee ci yonent bi. yu ñu ci yonent bi. jikko rek jikko rek. lañ leen tagge lañ leen tagge. kon bu nekkoog yow benn. kon bu nekkoog yow benn. ngay wéet ak moom ngay wéet ak moom. kuñ dul fekkee. kuñ dul fekkee. mu ngi récupéré. muy muy récupéré. ci yow mu ngi récupéré ci yow. ay jikko ay jikko. yu rafet yu rafet. gerte ngaaraama gàcce ngaaraama yow. musuma dégg ci Ousmane musuma dégg ci président Ousmane nii. mu wax kaddu mu wax kaddu. muy kaddu gu ñaam. su ma nopp nag maa ko moom ma nopp nag maa ko moom. kenn mënu ma ko kenn mënu ma koo xaj. tëxuma tëxuma gumbawuma gumbawuma luwu luwuma. waaw eh, Serigne Moustapha nee na imam dinaa la wax moom mii. yàlla dafa dogal. Serigne Abdoul Aziz di ma yónni ci moom. su ma demee fekki ko fa mu ne ci pale booba mi ni ci wetu président Diouf man xaw ma président Diouf ci ñi ñi yàlla dénk cër ci réew mi te booba jamono moom laa ci mës am su ma dikkee jox ko loxo mu ni ma si ma ne ko jeng moom laa mës a amit su ma amee aajo mu xam ko mu def ca loo xamante ni fooguma ko sax wóllëre woowu la nu àndee maam bu naam xam ne ci lu baree bari ndax moom mii xamul fu ma bokk ci langue politique waaye xam na ni man mii wóllëre te yàlla tax moom it te moom it boobaak léegi mu jàpp ko mooy symbole yu mu ñëw ba ci buntu kër gi pour mottali wóllëre woowu ndax dafi daan ñëw neuf heures dafi daan ñëw bu dikkee naan fa kafe doog a génnaat waaye tey waaye ah, dafa ñëw ànd ak leneen muy ñaan bu nangu ndax bii lañ ko ñaane woon bu ko yàlla defee bu ko yàlla defee nag loola sotti loola sotti mu ni mu ni du ma ñëw du ma ñëw di soppiku di soppiku ñàkkam soppiku rek moo tax ñu naw ñu naw mu mel nii mu mel du ci soppiku du ci soppiku mu wala woowu wala woowu moom la ñuy seq. am na ñu mu ko daan seqal. am na ñu mu ko daan ci Tivaouane. waaye tey waaye tey. loo leen fi gis loo leen fi gis. nun nag nun nag. danoo xamul xamul. jàpp bàyyi jàpp bàyyi. ku la ko jàpp ku la ko jàpp. yàllaay tax yàllaay tax. ñu jàpp jàpp la. bu ñu lay bàyyi bu ñu lay bàyyi. yàllaay tax yàllaay tax. ñu bàyyi ñu bàyyi la. bu ñu la bàyyi te la bàyyee. xam ko moom mii nag moom jàpp nañ ko jàpp nañ ko. ngir melokaanam ak mbaaxam ak yiw ak loo ko xam-xam loo xam na boppam raw lu di wax ne ne di wax ni li nga xam ne sëriñ Moustapha wax na li nga xam ne sëriñ Moustapha wax na ko dafa wax dafa wax boppam waxaale ma waxaale ma kon nag ne kon nag du ma def lu moy du ma def lu moy di ko gërëm bu baax a di ko gërëm bu baax a baax ni mu ko waxee. nee ni mu ko waxee. ni ñu daan doxalee démb. ni ñu daan doxalee démb. ak barki démb. ak barki démb. noonu la ñu fas yéene. noonu la ñu fas yéene. di continuer di doxal. di continuer di doxal. li ci soppeeku li ci yokk du ci soppeeku duñ ci yokku. li ci li ci liñ ci li ci yokk ma ne. li ci yokku moo ma ne na. du ci changer dara. duñ ci changer dara. parce que yaakaar naa ne. parce que yaakaar naa ni. li nga xam ne ñoom laa àndal. ñi nga xam ni ñoom laa àndal. ak. kuréel gi nga xam ne ñun la ñu lañ bokk. ak kuréel gi nga xam ne ñoo ko bokk. loolu chance la ci ñun ñëpp. chance la ci ñun ñëpp. ñu mun a am lu mel nii. ñu mën a am lu mel nii. kon nag kon nag. ñu ngi la ciy gërëm bu baax la ciy gërëm bu baax a baax. bés bés yàgg su ñu jógee fii ba dem ci sëriñ bi. nee ndax bu ñu jógee fii ba dem ci sëriñ bi. ah la ma daan wax rek laa da wax. la ma daan wax rek laa laay wax. jaar nañ ci bunti bunti yi. jaar nañ ci buntu néeg bi. waaw ci lañ jaar. fi la jaar. muy sëñ Moustapha. te mooy sëriñ Moustapha si. kon nag ñu ngi koy gërëm bu baax. kon ñu ngi koy gërëm bu baax a baax. di ko te li ñuy def it. nee te li ñuy def waaw suñu warugar la. warugar la. suñu aada la. suñu aada la. Euh, parce que. parce que. am nañu yaakaar bu baax. am nañu yaakaar bu baax. ci fii. ci fii. ci kër gi ak xadara bi ak xadara bii. kon nag kon nag. ah jaadu na. jaadu na. waxtu wi waxtu mel nii su jotee. waxtu bu mel nii su jotee. ah ñu ñëw fi. ñu ñëw fi. doxale ni ñu daan doxalee. doxal ni ñu daan doxalee. comme dañ ko daan def. comme dañ ko daan def. mu jig ñu. mu jig ñu. ah yàlla ñaan. nee nan ñaan. di ko yàgg def. di ko yàgg def. di leen fi yàgg fekk. yàlla di leen fi yàgg fekk. mu ànd ak wér. mu ànd ak wér. ak tal ak tal. te li fi li fi ñaan ñun ñëpp. nee te li ñu fi ñaan ñun ñëpp. ñun ci barke. ci barke kii tëdd ak xadara bii yàlla nangu ko yàlla nangu ko ni ma ko ni ma ko sëñ bi waxee léegi. ni ko sëñ bi waxee léegi rek. man ñëw naa. man ñëw naa. ànd si ak euh, au conseil. ànd ak au conseil. ñi nga xam ne kuréel. ñi nga xam ne kuréel. boo xam ne Abdou Diouf moo ko sos. boo xam ne Abdou Diouf moo ko sos. wóoluñu. Macky Sall Macky Sall moo ko sos. Macky moo ko sol. Macky Sall moo ko sos wóoluñu. wóoluñu wóoluñu. ah def ñu ci bopp bi. def na ci bopp bi. ànd ak bureau bu ñu def ci ci. ànd ak bureau boo xam ne yooyu itam dañ ko dañ ko fal. ànd ak bureau bu ñu fal. ñu ñëw mu ñëw ah, mu tombe mu tombe nag ak euh, gàmmu gi ak ak bisu yonent bii di gàmmu gi waaw loo xam ne fa tedd moom fa la fa la yem foofu la commencé loo xam ne teraanga foofa la yem fa la commencé kon nag nekkoon nag loolu chance la ci ñun chance la ci ñun ñu ñëw ñu ñëw présenté leen ko présenté leen ko présenté ko sëriñ bi présenté ko sëriñ bi présenté ko famille bi présenté ko famille bi pour ñu ñaanal ñu pour ñu ñaanal ñu ndax li nga xam ne moom moom lañ yaakaar ci ñun ndax li nga xam ne moom lañ yaakaar ci ñun président ci boppam président ci boppam ak réew mi ak réew mi ñu gis ci lu ëpp loolu ñu gis ci lu ëpp loolu loolu daal mooy tànk yi loolu daal mooy tànk yi tombe bi daal tombe bi daal bi ñu soog a fal bi ñuy soog a fal mu tombeeg ñëw fii mu tombeeg ñu ñëw fii kontaan nañ ci kontaan nañ nañ ci am nañ ci yaakaar waaw loolu du ma doon jërëjëf ne daal looloo doonoon kàddu yi <laughs>